màgg ji noo ngi koy sant moom mi nga xam ne mooy aju not ji ci nguuram noo ngi koy sant mi nga xam ne mooy aji settantal ji mbir yi aji dogal dogal yi noo ngi tudd ak sellam moom mi nga xam ne mooy buur bi nga xam ne kenn rek la mooy aji not ji ci nguuram mooy borom juróom-ñaari asamaan yi mooy borom juróom-ñaari suuf yi mboolem lu ñu bind ci diggante asamaan ak suuf lépp ci moomeelam la nekk mooy aji tedd ji mooy kon bi julli ak sëlmal yàlla nekk ci sayyiduna muhammad moom mi nga xam ne moom la yàlla tànn moom mi nga xam ne moom la njeebal ci mbindeef yi ngir muy xuppe ak di bégle yàlla julli ak sëlmal nekk ci moom nekk ci ay ñooñu mag yu saxaabaam ñoom ñi nga xam ne ñooy borom ndëgër lay ñooy borom gis-gis yu kawe ya ko defee mbokk yi incha allah dañoo bëgg a fàttalante ñaari xadis yonent yàlla muhammad salawatullahi wasalaamu alayhi benn xadis bi sayyiduna muhammad day wax ne sayyabat nii huudun wa axawaatuha nee na saar wi ñuy wax saaru huut ci alquranul karim tiit loo na ma ba ma bi jaaw ndax ay tëkku ak ko xuppe yoo xam ne borom bi tabaaraka wa taala def na ko ca mu ne saar woowu day tiit loo na ma ba ma bi jaaw moo ki mbokkam yu mel ni moom juróom benn fukki at ak ñett la dund bi mi genn aduna di dem barsàq desewut kenn kawar gu ñuul kawaram gep dafa wex tar ngir jaaxle ci digganteem ak boromam ak di teewlu mag yalla gi tabaraku taala ak sañ-sañam ba ak forayam ga ak reyaayam ga ak katan gu reey ga motax mu ne sëyabat khudun wa khawatu xawaatuwaa saar wi ñu wax saru xud moko mel ni nañ ma bama bi jaaw diko ñaare lu hadith bu moy al fitnatu na'imatu imatu laana allah man ay xasa yonent yàlla muhammad neena fitna ngay nelaw yalla na yàlla rëbb waaju ko kon fitna mom foko fek nelaw rek la baxo saa su yeewoo iya rek nitu ko ye iya. daf ko ye iya, ci kaddu mbamu mu ko ci jëf su ko defé ñaari hadith yooyu lañ bëgg teunk inshallah waxtan ci mbokk yi yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa baxo won bu ñu ñëwee ko nit ci mbax wax ko ak jaamu am wax ko ak ragal am ak maandoom day laaj ne ndax jëmm jooju da ngeen ko gis muy waxtaane deelu bari buñ ne ko ah ah kay moom day fu mu toll dee lay waxtaane mu ne kooka day kon day xam ne la tax yàlla bind ko waaye buñ mosaa tagg nit ci kanamam bu laajee ne ndax da ngeen ko dégg muy waxtaane dee ñu ne ko moom day wuñ bëriwut lu ñuy dégg ñu di ko wax mu ne kon day kooka fa ngeen ko teg nekkagu fa ndax dee ci boppam day station day ab jaaruwaay boo xam ne jaam bu nekk da nga cee jaar ëllëg muy jaaruwaay boo xam ne nag moo taxoon ñu bind la xalaxal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lu mat bàyyi xel la mbokk yi sayyiduna muhammad bokk na ci misaal yi mu joxe dañ ko mossa laaj ne ko méttitu dee maanaam méttitu génn ruux ci bir yaram bi naka la mel mu ne mën naa leen cee jox misal mu tuti mo xamne dana tolok seen xel ngeen man ko ngeen man ko teunk bu fekkone dañu jël ciarub dekk bo xamne dafa def ay ay ay ay bànqaasam dafa def ay ciaram ñu duggal ko ci bir yaramu doomu adam ben ciarub ciarub dekk bu ci nek japp ci ben cër ci cëri doomu adam ba cër yep daj japp ci bir bobba japp ci yuur ga ci jàpp ca yaxya ba car bi lépp jàpp sayyiduna muhammad nee na ñu woo jëmm ji ëpp doole ci àdduna ne ko bifal car bi mu génn mu ñëw bif car ba boole kook ñàkku yërmande ak ko coxorte cor ba génn ànd ak càmpooram na muy mettee ci doomu aadama ji sayyiduna muhammad nee na faatoo ko gën a metti ruu gi génn ci biir yaramu doomu aadama ko gën a metti moo tax loola di ay jaaruwaay yoo xam ne jëmm ju nekk war nga fotol di ko bàyyi xel ak di ko waajal. askan wi ci yi. mbokk yi bàmmeelay jaaruwaay boo xam ne mooy station bi njëkk ci station yi alaxira yi yonent yàlla Muhammad Seydina Seydina Muhammad nen alxabru awalu mansilin min manasil manasilil axira fa in najaa minhu fa ma baxdu aycha wa in lam yaddu minhu fa ma baxdu achad yonent yàlla Muhammad nee na bàmmeel moy station bi ñëk ci station al yi nee bu fekkee ne nit ki dem na ci bir bammel muccu fa nee bu génné ci bir bammel ba lam fekkon ci bammel ba ci teranga lamuy fekk ci taxaway bis penc ba ak lamuy fekk aljana mo koy dakk waye nee bu fekkee dem na ci bir bammel ba te muccut nekk fa ak tuskare ak tak ak torox tangé na bu génné ci bammel ba lamuy fekk ci taxaway bis penc ba torox tangé ak metti moy raw fuf la nga xamne mom la fekkon ci bir bammel bammel momu nak moy waccu way bi nga xamne moy waccu way bi ñeek ci waccu wàccuwaay alaaxira sayyidina Muhammad neena innamal xabru rawdatu min rayaadil janna aw xufratu min hufri niran neena bammel ben mu nek ab deur ci deuri aljanna yi mba mu nek am pax ci pax sawara yi ni mi nek ab deur ci deuri aljanna yi moy nit ki mokay koy fi ci aduna ci bi mi dund fassiyene jëf-jëf yu bari yu baax jital ko ci pax mu tuti mu sew bolé ak lënd mayam nga xataayam nga ngir bu ëllëgé bu démé man fa fekk tara nga jo xamné mom la fay dunde wayé nak lég léeg bammel don am pax ci paxi sawara yi namuy doone pax ci paxi sawara yi doomu adama koy wajjal fi ci ay jëf yu ñaaw ak melo yu ñaaw ak jikko mbokk yi Cheikhul khadim neena wa munkarun ma'na kirin ya'tiyan الميت بعد موته ويسألان نحن دوم هذا مجبين كسول كبير بامير بروبي أما نياري جم يو خم نيو وري نيو كبير بامير بواخن مم أنا لين كوي لاج نينا أن حد توحيدين دين كوي لاج دايب توحيدم سواء نقبرا بعد انتصاح الروح أو لم يقبراه moo xam rob nañ ko ci biir bàmmeel moo xam ku ñu robit ci biir bàmmeel la waaye ku faatu ku nekk nee na munkar ak nakiir danañu ñëw laaj la tawxiid ana naka nga wéetaloon yàlla laaj yi kenn ku ci nekk daañu ko laaj ci sa biir bàmmeel man rabbu ko ana kan moo doon sa borom man nabiyu ko kan moo doon sa yonent askan wi ci bii maa lan moo doon sa téere bi nga daal téere woo ci téere yi ci àdduna waaye man eh, eh, maa diinuk ana jan mooy jan diine nga diine woon ci diine yi nekkoon ci àdduna jaamu yàlla bu nekk daañu la ko laaj bokki شغل خدمة عن حد توحيد الله كان كتير نقدر لا كوي صبره تيجي لأي نتوك نان بامل لا جتون في الله لا جتون في يرنتي على محمد كيف كل دقيقة سبير بامل دين لا لا جن لكر موي أحمد لا خمن تيار خمن خمن غوك بني وا خمن نا كني باي لا جدال بني خمو خمو كون يتيلا بقي أمول كن كني لا تبير بامل كل برم بتبارك وتعالى Cheikhul Khadim ko an haddi tawhidin ku dugg ci sa bir bàmmeel ku nek kan moy do sa borom kan mo do sa yonent ban téré nga téré won waye jën diine nga diine woo woon moo tax laaj yoyu lu mata fonk lu fi ci aduna bala nga dem ndax bo rewé buñ ko laaj nga man ca Cheikhul Khadim neena ñaari mala ko yoyé nga xamni ñoy laaj nit ki ci bir neena sawtahuma ka mislu rahdil qasifi seen ñaari kaddu bu wax ak neew bi ci bir neena kaddu yi day melni dëndu guy dëndu di عيناهما كمثل برق قاتل نيانا بوني جاكارلو يو دي لا خول سين نياري بدي داي برخ برخ ملني اي ملخ يو خامني دا فيف نيانا يخرج من فميهما مثل شرر بوني دي واخ نيو بي سي بير بامبل بي نيانا سين غيمني داي مين اي فرنت تي ген عند مخاطبه مسؤول البشر نيانا بوني دي واخ نيت كي سي بير بامبل سين غيمني داي مين اي فرنت تي ген نيوم نياري ملاك يوي ما شدة الضيق وشدة الحلق دوما آدم جي بولي كوك خطا يو بامل بي أقطا يو أترا يو لن بو بامل بي يو مات باي خلا سيول خديم نينا وكل خلق منهما قد خافا حتى الملائكة لا خلافا نينا نياري ملائكة يو ينغ خمي نيو واتي تي بامل بي تاورا لاج نتي نينا مني في يالا بني يب يو مسلو تي نيوم نينا مني في يالا يب ولي رغل بچي ملائكة يساق دنيو رغل من كرق ناكير نينا ñaari mindeef yi ñoo gën a raglu ci àdduna muy jind ak malayka te ñoom dañoo ragal dañoo ragal buñ kirak nàkk wa kullu xalqin minhuma qad xaafa hatta al malaykata la xilaafa malaaka yi sax dañoo ragal buñ kirak nàkk mbokk yi sayduna jibril mi nga xam ne mooy aminul wax yi nga xam ne moom la yàlla di yónni ci yónnante yi sayduna jibril sayduna muhammad musu koo gis ci jëmm ji ko yàlla bind bu daa ñëw ci moom melaw doomu aadama la yore la ëpp melaw wa ëpp bi mu daa yore mooy melaw dahiyatu kalbi kenn ci saxaaba yi la woon bis bi suñ yonent yàlla Muhammad ñaanee boromam gis Jibril ci meloo ko yàlla bindee bañ ko ko waree dafa xëm te moo ne Jibril day dafa ragal munkar ak nakiir askan wi ci bii malaaka yi sax dañuy muslu ci munkar ak nakiir ndax seenu raglu wa kullu xalqin yastaisu minhuma wa minhuma axatana rabbu sama Cheikhul Xadim nee na malaaka yi sax dañuy musul ci munkir ak nakir yàlla ñu yàlla musul ci ñoom mbokk yi yii mooy ay xew-xew yoo xam ne war naa xew ci biir bàmmeel kenn ku ci nekk nag war ngaa ñaar war ngaa waajal ñaari gan ñooñu nga xam ne danañ wàcc ci yow moo tax Cheikhul Khadim nee na maa xiila fi suali saa'ilayni al xabri qul xaqun bi ghayri mayni ni nee na li nga dégg ñu di ko nettali ci laajug ñaari way laaj yooyu nga xam ne kenn ku ci nekk danañ wàcc ci sa biir bàmmeel laaj la نانا بوكو بوكو وايف شيخ الخديم بوكو بوكو وايف المك قل حق بغير مين دغ لو كوير نانا ñaar ñoña واسمهما المنكر والنكير امرهما بسكره جدير شيخ الخديم نانا سين ñaari توي منكر لا نكير منكر موي كو خامني نانا موم كين خمكو نكير موم موي كو خامني خمو كين امو كين ريلاسيون مبكي كين منو لينا غير كين منو لينا جند moo tax Seexul Xadim nee na amruhuma bi fikratin tadiir ñoom ñaar ñooñu foo toll nga di leen xalaatal di xalaat bis bi ñuy yendoog yow ci sa biir bàmmeel nee na lu mat a bàyyi xel la Seexul Xadim nee na waskur juluusan daaxa suma waxdaka fi xufratin zaati duja taxufuka nee na fàttalikul bu baax jataay boobu nga xam ne da nga ko toog ci sa biir bàmmeel muy jataay boo xam ne doo wëlbatiku ci ndeyjoor doo wëlbatiku ci sa ci càmmoñ ndax ci paso xat ci lañ la yëkkati dij la ca waskur julusan daaxa fàttalikul jataay boo xam ne dafa su ma wax dakaa nga wéet fa nag amul kenn ku lay wéttali fii xufratin du jaa taxu ci biirum kan moo xam ne kan mu lëndam lay doon nga xam ne dañ lay peeg ci biir kan ma lépp suuf lay doon doo wëlbati ko jëm day jor doo wëlbati ko jëm càmmoñ ndax xat baxda rujuu'i daafiniina kullihim mustamian usnaaka qaran alihim cheikhul xadim nee na ñi la doon rob buñ la robee ba woon la ginnaaw da ngay dégg kepet keppeti sen dal ya ndax buñ la robé bo nda ginaaw rek delo nañ la sag roox nga dégg seen kepet keppeti dal ya ñanga la wan ginaaw ñom ñep di dem wa tatlubu nahda wala sataqdiru taqdiru nga ne bëreet buur bëgg jox top leen neena na bi na nacc tey la wa tatlubu nahda wala sataqdiru ala qiyamatin wala satasbiru mëno jox taxaw te li nga gis ci am tiit ak ak mënu muñ lima sami'tu min al ahwali wadah dahsi bil insaari wal awjaani motax mbokki li lu mata khalat la cheikhul khadim nee asmauhu dhakara su shani kathiratan jiddan ala alquran nee turi bis penc suñ borom tuddu na ci alquran lu bari lol cheikhul khadim nee tuddu gu bari googu ko di tuddu nak lamuy tektal moy teruk taruk tiswa, ak taruk jaxle ga ak taruk tiitaange ga tiitaange ga ak taruk mettit wax ak taruk targa moo tax suñu borom di ko tudd lu bare bari asmaau zakara zuzani kasiratan jiddan ala alqurani nee na tudd na ko lu bare bari ci alquran wa hiya dalilatun ala al ahwali wa shiddati al awjali wal ahwali lu mat bàyyi xel la mbokk yi cheikhul xadim nee na doomu aadama ju nekk ñett nga am askan wi tv muy sa alal say mbokk ak sa jëf waxtu wo xamé na teqalikoo nga ak sa bakkan alal ji nga dajalé won ci da na la man mana la man yam ndax man kuy dund la man andal waye waaye mënuma and ku faatu man ku faatu fi nga may hmm ndax ci ay loxo la jóge won dugg ci ay dugg ci say loxo bis day ñew mu genn war ci say loxo dem gané ji wat ci yeneen loxo wallahi wallahi motax alal ji day tok ci aduna na la man duma and man koy dund rek la man andal mbolé nga dajalo da ko fi bàyyi nga dese kan nga dese say jëf ak say mbokk mbokk yi ñolay tak bëgg dëgër mbokk yi ñu teg la cib jaat yenu la ñom ñolay la ci xabru ya bu ñu démé tabal ci bir pax ndax amuñ menn pexe ceew buñ la bayé ci seen loxo nga yàqu amuñ benn ci yow gas pax ba mu xoot ñu tabal ci bir pax ma soor lool moy ñak pexé mbokk yi di and ak nit muy dund ngeen ànd di doxi soxla nga xam ko mu xam la muy sa xarit muy sa baay muy sa soxna muy sa doom muy sa mbokk muy sa nijaay kum mën a doon ci yow mu faatu amu benn pexe ci moom lu dul gas pax dugal ko ca mbokk yi loolu mooy ñàkk pexe subhanallah mbokk yi foofa la ñuy yem bu ñu la dugalee ci pax mi foofa la ñuy yem minute yu neew nga xool bàmmeel ba duutoo fa gis kenn ku toog ñëpp dem nañ bàyyi la fa boo duggee ci armeel yi ngelaw rek ngay gis ak picc yu sab boo demee ci marché ba da nga fokk mu xumb boo demee ci gaaru ceer yi da nga fekk mu xumb Carrefour yi da nga fekk mu xumb waaye mbokk yi armée la bu ñu ramee ba noppi ñëpp génn ku ñu fay bàyyi néew bi ay jëfam subhanallah moo tax jëf yi mbokk yi lu mat rafetal la lu mat rafetal la kon ñu ñëw ci ñaareelu xadis bi mooy yonent yàlla Muhammad nee na al fitnatu naimatun laana allahu man ayqasa yonent yàlla Muhammad nee na fitnaa ngi nelaw yàlla yàlla rëbb jaam boo xam ne day yee fitna mbokk yi bu nu seetloo jamono ji ndax dañoo jëm ci jamonoy élection tey jii politiciens yaa ngi dajale ndaw ñi di jënd ay ngànnaay di leen jox ñoom sénégalais yi ci seen biir ñooy xeexoo ci seen bopp ñooy tojantey bopp ñooy dóorantey jaasi ñooy dóorantey fetal ñoom nag dañoo war a xam ne yonent yàlla muhammad nee na kullukum raain wa kullukum na an raiyati yi jaamu bi yàlla bu nekk nga jiite mbooloo ab sàmm nga ci ñi nga jiite ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la laaj ñi nga jiite woon càmm googee nga xam ne moom nga amee woon ci ñoom ndax jaarale nga ko coon walla déet lii may wax nag ñi jiite ak ñi wut te amaguñ ñoom ñëpp a ci yem nañu xam ne ay sàmm lañ kenn ku nekk ñi ànd ak yow ay sàmm nga ci ñoom bul tey la mukk seen i bakkan ndax ëllëg yowmal xiyaam kat yàlla dalay teewal ci sa kanam te fépp foo jaarum dana la ko mbokk yi malaaka yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kaw suuf keroog bi leen fi yàlla di jële na leen inni jaahilun fil ardi xalifa dama leen fay jële bëgg a jële indi fi yeneen nit ñoo xam ne ñoo leen fi wuutu malaaka yi dañu ko dañ koo laaj ne ko atajaalu fiiha man yufsidu fiiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbiku nusabbihu bi xam hamdik waaw ndax yàlla yow dañu fee bëgg a jële ñun ñi nga xam ne fu ñu toll dañ jaamu di sabal sa tur di la dina màggal nga bëgguñoo ñoo jëlee ci kaw suuf indi fi ay mbindeef yoo xam ne bu ñu ñëwee waaye su ko dimaa tuur deret rek la ñu liggéey ci kaw suuf nga bëgguñu ñu fay jëlee ba nopp indi leen fi ñoom bokk yi jullit bu nekk danga war a bañ a fexe dangaa war a fexe ba bañ a bokk ci liy firndeel waxi malaaka yooyu nga fexe ba sa saw làmmiñ ak sa sa sa sa say loxo nga nga fegal ko nga fekk seeni lor ci mboolem bépp jullit bu mën a doon loolu bu nekk da ko war a ngànnaayoo mbokki da ngay gis ndaw ño xamne dañu dañoo liggéey ba nopi dañu jang ba nopi amuñu liggéey ñuy taba taba sen bay fatuna ñu nek ak sen yaay ci biir kër gi di taba taba yor kër gi. askan wi tv bii. nga gis fe ben politicien bu ñew jël ci len fay len xaliss jox leen i xex lo len yow sa way juru gor dundatul ya yor say yaay yor say rak ci biir kër gi ngeen néew doole nga dem di xexo bañ toj sa bop ñew bu l'hôpital entré kala taxon di xex ba nga toj sa bop dem na kërëm moko ko yow la nga doon def ci kër gi mënatoo ko ndax yaa ngi tëdd ci hôpital bi la nga doon def ci kër gi mënatoo ko waaye sa yaay ci boppam day dem yalwaat lu mu la faje ana loolu ko jar bu ñu la dóoree jaasi nga faatu bañu ñu baa dóor la balu fetal nga dee dañu la yóbbu robi la politicien ba tax nga rey sa bopp day dem ci njabootam yow ñu robi la say way jur jaaxle saraka ya nga yoroon yëpp jaaxle mbokk yi loolu ndax ci ndaw ñi bàyyi xel daray àdduna jëru ko te waxtu woo xamee na ñu ngi jub ay élection dangay ngay gis politiciens yëpp dañuy wàcc ci terrain bi ame seen xaalis di joxe boo leen wooyee téléphone jot leen koo ci bëgg a gis-gis ko dafa fekk ne ndox may tànk la ñuy wër te amaguñ ko waaye saa suñu amee ndox ndombay tànk du duutoo leen woo téléphone jot leen duutoo leen soxla gis leen seen domba tank yooyu ñu doon wut luñ ca ab dañuy dem jari jokk ñok seen kon bu leen nangu mukk ay politiciens di leen dajale di jënd ay ngànnaay di leen jox naa leen dem leen xeexal ñu dem leen xulool ñu dem leen tojanteel bopp dem leen rayante déedéet te ñoom ñi leen rayanteloo ñoom ñi leen tojanteloo ay bopp seen njariñal bopp tax ñu di leen xeexloo ñu mo seen njariñal bopp tax ñu di leen xulooloo la wut ci ay tànk buñ ko amee duut leen leen rek duut leen leen gis lu mat a bàyyi xel la boo ci jëlee ab gaañu gaañu gaañu gaañu boobu yaa koy wéete de bu ci sa bakkan rotee nga dem ci sa bàmmeel tëdd fa yaa koy wéete de ñoom seen yoon nekku ci te li ñu war a bàyyi xel mooy musu ñoo gis benn politicien buy xeex ngir ay élection nga gis doomam ci biir xeex ba doo gis jarbaatam ci biir xeex ba doo gis rakkam ci biir xeex ba askan wi loolaa tax ñuy jël askar wi di leen joxe ngannaay di leen jal ci seeni morom ne xex leer ak ñom buñu ñu baxna ndax seen dom neeku ci seen jarba neeku ci seen rak neeku ci léegi nak lutax yeen ndaw ñi ngeen nangu ay nit di leen jël ño xamne dañ leen utiliser ngeen ngir seen ité aduna bu ité jexé ñu dem ngeen dem dut leen leen gis dut leen leen dégg téléphone ngeen attan ci far seeni bakkat attan ci ray seen bop bu mu leen ko jaral mukk bokki bu mu leen ko jaral mukk lolu mat bàyyi xel la su ko defee li ñu tëjee mooy sunu mbokk politiciens yi nañu xam ne lii ñuy def di ko tuddee politique yemut ci àdduna dafa dem ba àllaaxira ndax àdduna amul lenn lu fi nit di def loo xam ne fii la yem bépp jéego bu fi nit yëkkati mbaa kàddu gu fi nit yëkkati loola lu suñ borom bind la wa kullu shayin ahsaynahu fi imamin mubin lépp lu nit def rek mbaa lu nit wax bindal nañ ko ko ci téere boo xam ne ëllëg ëllëg bu duggee ci biir bàmmeelam danañ ko rek léeg moom kon nañu moytu di yee fitna ndax fitna jii nga xam ne mi nga am ci réew mi ay nit di tojante bopp ay bakkan di ci rot nañu xam ne bu fekkee ne tooñ gi mi ngi sababoo ci ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi fitna jooje mën nañ koo fay ndax nañuy def ba fay fitna ci xam nañ ko askan wi TV bu fekkee ne ci ñi nga xam ne dañuy opposé maanaam dañuy wut te amaguñ bu fekkee ne fitna ji ci ñoom lay bàyyi ko nañuy def ba fay fitna ji xam nañ ko mbokk yi wut ndombay tànk jërut bakkan di ci rot ndax bépp bakkan bi ci rot te ci sa coobare la rote da nga ko layeeg sa borom yomal xiyam te képp koo xam ne rey nga benn bakkan mbaa nga coobare wu ba bakkan dee